Mouhamad nga tudd sa baay tudd Mouhamad baayam tudd Mouhamad baayam tudd Mouhamad Habiballah jur leen muy Mame Balla sëriñ Modou Moustapha bési ngi boo xam ni taxawaay bii ku mu jaaxal da ngaa umpale xaadimu rasool ndax xaadimu rasool Cheikh Ibrahima Fati ku xam dara xam nga ko Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Balla ku xam dara xam nga ko. kon lii nga def dekkal cosaan la ak dundal dëgg yàlla nga gudd fan sëriñ Modou Moustapha def nga lu rëy ci yoonu murit loo xam ne sa maam rekk leen fekkan mu def ko mooy Cheikh Ahmadou Bamba man lim man ci yàlla ba noppi defar sa doomi baay ci sëriñ tubaa sa la jëkk fa la yem xamuñu ca keneen man lim man ba noppi yemale sa doom ak doomi jaambur ci Cheikh Ahmadou Bamba sa maam lañ ko xamee ca la yem lii exemple bi moo di ni man lim man defar sa doomi baay ñi maam Mor Anta jur ñëpp Serigne Touba leen defar Thierno Ibra Faty ak maam Cheikh Anta ku maam Moram loolu mooy dëgg ci sa maam la jëkk li ko ñaareel ma ni yemale sa doom ak doomi jàmbur ci sa maam la yem sëriñ Serigne Saliou Mbacke fi nekkal te yi xaadimu rasul di sun Serigne di sun kilifa nun ñëpp fii ci biir dëkk bi waaye boo demee këram la nga fay fekk moom nga fekk nga ngañ jenn aw daldi ci bunt kër ba. sukk jox la loxo nuyu la ba ca dara dem ñaan loola tiil liis la ko moo ne kër sëñ lu ma lañ fekk kër saa Issa loolu sama ma ko fi jëkk waaye yow nag def nga lu dijj loo xam ne nu ñii di xele nekk si seen ginnaaw di ay rak yàlla dogal na du ñuy dof ndax am na barab bu ku fa juddoo dof mënoo koo doon diggante leer ak alxuraan kum jur mën laa dof te nu sunuy maam ay waliyu sunuy bàyyi ñëpp ci ñun di suñu waajur jigéen ay doomi soxna di woroome alxuraan moo tax alxuraan leeranu jur def nga lool yaa ko jëkke li ñu tudde mag moom nga nangu koo defar boo léegi sa doom du fudd nga defar ko say doom yi baay ñàkk kañaan mënu ko raw yow mi yaa ko fi def lii firnde la ji sëñ Modou Moustapha loo laaj ko yaakaar sëñ Fallou ni sëñ Fallou laa ko jëmee des na ko nangu ndax yaa ko jëf ku dikk danga ca teg sa baaraam sëñ Modou Moustapha koo bokkal Cheikh Mouhamadul Fadil def na li Serigne Fallilou ngir danga ko yéenee li nga xam ne moom la Serigne Fallou am muy barke ak addina ak alaxira nit koo yéene teraangam rek mu bëggal te koo bokkal sëñ yéene ko mboolem li sëñ baax la te sëñ Fallou lépp ma baax ndax yoonu mu réy na lool Serigne Touba sunu yaakaar waaye sa bàyyi jëkkëram murid yi dafa am bés mu bind ab kaamil jox ko xaadimu rasul addiye sëriñ Touba fab kaamil ba teg ci dënn ba déglu ko ne ke wenn araf desut moom du li ñuy téere di ko déglu bu tegee téere bi ci dënn bi rek arafo des jooy ko boppam mu ne ko bii di mat na lool mat na sëkk waaye ma dem te ñëw dem dellu si ne ko suñ borom ne nga bindal ko beneen sëñ fal ni ko yàlla moom boo bindoo daf may fay sëñ bi gëdd ko ni ko moo fal ko toll yàlla sant la an la tax nga fay mu ne waaw yow de boom binduloo mu waaye moo boo bindoo daf may fay mu dem dellu si ko suñ borom nee na loom fi toox ko am na kartanam mu ne ko jox ma kayit sëñ bi jox ko kayit mu dem bi ni téere ba mu mel na melan dikk joxaat ko xaadimu rasul sa sa maam sëñ bi dégluwaat téere ba mu mel na booba mu ne ko falilu suñ borom nee na loola ma wax lim la waxan def nga ko waaye nee na loo wax mu ne ko dama bëgg yow Cheikh Amadou Bamba ku la sopp dem àjjana sëñ bi ni teg mu yàgg mun kaa ah, falu yaa nga lool de waaye yàlla nangu na puloo bu man lam yuhibbuni ala wajalin ñëpp dégg na ko wala yu laaxoona ma raamu ñëpp dégg na ko loolu moo am kooko sa bàyyi ko jëkk def kon boo ko doon ne wuutu ko liggéey liggéey bu toll nii liggéey ko ci këram yépp ngir dundal sëriñ Fallu kenn gënu la ak barki du Bamba te mboolem nun ñu fi nekk lu la waay wax rek dëggal ndax ku ne sëñ bi teral na ko kon lu la waay wax rek yow kon mbàkk yal na nga gudd fan yaa ngi ñi nga bokkal bàyyi yal na nga gudd fan yaa ngi ñi la sopp yal na nga àgg na yoon yaa ngi ñi la bokk bëgg yàlla na mel na nga bëgg ngir ab murit ni yow lay mel murit pire ku da nga naan kii kumu bu ngeen jaxasoo nga naw ko bu ngeen nga gëm ko yow mi yaay murit looloo mooy murit murit lu ca des rek du murit ndax Serigne Touba tey laaj démb ak lépp léppam dafa mat kon murit wër ta matadi waaye yow nag am nga mat goo xam ne yii yaag ñu baree ko bokk ngir tey jii dóor nga karawaas ñu bari ci yoonu murit ku bëgg a baax dana la roy ndax bëgg sarak ak defar sarak defar sa gannaaw baay dundal sa baay lu jafele te def nga ko kon bokk yëpp ngi lay askanu ba nu